course yi ñuy daw pour am versement bu doy tax ñuy tànk dajale nit ñi comme la yàlla xam doy na ñu dimbali leen ba ñoom loolu bañ a nekkati seen souci ñuy dawal norme man li ma jaaxal en commun Gambie Gambie propre normal amul lii Gambie waaw kii bi surcharge bi pour overcharge ba parce que da ngay gis aussi chauffeur boo xamante ni tata du benn du ñetti yoon bu nekkee di dawal am fees day tëj ay buntam mhm. mais pour que nit ñi wàcc da ngay gis nit ki ci boppam mooy bu bu roxloo oh. pour dugg oh, pour dugg est lu gis nga comme li ngay gis. mi ngi nii parce que parfois amuñu choix ndax dañuy tardé ndax dañuy wax ni am nañu ay bus mais ñun boo xoolee Sénégal parfois danga naan est-ce que amul li fi nekk ci bus ak tata est que matul vingt danga naan ëpp ko te pourtant peut-être mën na ko ëpp mais dafa doyul. parce que am na ñu bëri ñoo xam te dañuy tardé seen heure liggéey dafay jot boo naree xaar 16 euh, bi romb la fees 40 euh, bi romb la fees mais foo jëm doo liggéey da ngay tardé te il faut nga dem liggéey loolu moo ko waral. justement bigi naa la may la rek nga sànni si tuuti xorom. Hmm, ndaxte xam naa ne dina xoromu. fay ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi teewlu émission bi di Subatel en même temps euh, internautes yi et cetera mais man lu ma jaaxal man personnellement j'ai décidé avant may am bac laa ne du ma duggati bus. parce que dama sonn. économie déjà je suis en surpoids bëgg ci bus bi bëgg may ma ma toog euh, jàng suba guddi ñu ne la yow yaa ngi woon école yaa ngi woon classe toog nga donc amoo droit toog injustice bi nekk ci biir bi saagante yi les receveurs nga xam ne formation bi leen jàngal nañ ma baal mais saaga da cee bokk ak dàgg sante mhm. parce que mënuma concevoir nga nekk ci biir bus buñ la nee benn nga ne fukk te koo mhm. xam ne dafa fay xaalisam ñëw ba ci biir bus bi fay dugg nga war ko wàccee de de autre chose euh, yi moom ak receveur bi ñoo war a déggoo surcharge bañ a am ci biir bus parce que bus yi en général ngay gis ay sàcc yu énorme yoo xamante ni euh, yenn yi da ngay yor yenn somme yi sax c'est interdit nga dugg ci biir man sama sœur jël na euh, quatre fois lañ ko agressé mais ci biir euh, ay bus ay carab te day yor ay somme yu énorme ba ba ma ko yeddee ba sonn ne ko jël jël taxi boo ko amul tëdd sa kër <laughs> yàlla dina la fekk mbaa jëkkër fekk la fa mhm. donc dégg lu ma ñu sàcc ko sàccaat ko sàccati ko quatre fois te def na ko metti na ko et tout et cetera mais habitude yi ci boppam nañ ci insister parce que baaxul wala dara mais man personnellement damaa décidé ni man dootuma duggati ci bus parce que chaque jour da am xol bu metti da fay ba pare doo ci am lu la neex balaa nga booy da ngay rom arrêt kenn mosul bus yi sérieusement yéen mës ngeen leen wàccee seen arrêt bu ngeen yéegee bus. dañ koy dépassé dañ koy dépassé. Mhm. may man ñu la dépassé ba pare boo euh, fu nekk la ñuy taxaw autoroute ci boppam sax da ngay gis kenn ku taxaw ci autoroute di la loxo ñu may ko mu dugg ci bus pour mais c'est c'est incroyable mais daal Sénégal daal ma xam naa ne dañ jël jikkooy rek bulo ko su ne lépp a tilim lépp lépp a tilim. bulo yaa ngi rek eh, raxase ko. dañ ko raxase sama bulo incroyable. pour lan sama bulo ma ne pour lan sama bulo. daal bi xaw bi juróom non non je je je disais il faut que comme ni ko Pa Assane waxee moom rek laa mhm. yi respecter li nga xamante ni mais. c'est dommage. sénégalais daal vraiment daal da ngay defar ba sonn. daa waxu euh, surcharge bi xam nga moo koy indi. boo xamee ni yow sa liggéey. 8h30 mhm. lañ la woo pour nga ñëw liggéey. 6h lu la teree génn 6h. vraiment heure boobu kuy ne ci mbedd bi. Mhm. kon un peu c'est de notre faute. voilà sax ñeneen ñee moom sa ñoo neew dañuy liggéey. Mhm. ñaata euh, bus nga fi gis ñu daanu ci pont yi. te tey dogguma la Yacine mosoo bis fajar bus bu fees. moom laa lay wax lu la teree teel a mooy li may wax sénégalais dafa lu yóbbul non c'est pas possible quarante cinq minutes temps bi trajet bi di def. moom rek lay calculer trente cinq minutes alors que dafa war a sóoraale une heure mais oui imagine toi man bi ma nekkee au lycée. Mhm. bu ñu daan dem de la fosse di jàngi dugg HLM Padois man ak sama sœur dañ daan def une heure de temps ci biir bus bi minimum laa la wax. da koy calculer donc tu dois faire un calcul boo xamante ni tu te dis da ngay jël euh, jóge Padois mu romb Castor wër Sénégal Ndiaye. Mhm. surtout que ni am na yoo xam ne dañ leen trois beeg yooyu boo da nga war a réew yëpp ba pare a àgg la fa boo xamante ni euh, dañ ko la tudd wala euh, découvrir ma wala parce que am na yenn réalité yoo xam ne wala wane ma wala waaw wane ma wala yoo xam ne. tout à dit que ni lii ci dafa on est tey réalité ngay dund. Mhm. mais bus yi il faut benn jour par exemple yow nga def ci benn reportage jël sa caméra arrêté ci biir bus pendant deux heures de temps arrêt nga xool noonu. aller retour ci taasu nag. da ngay gis ay xale yu yéeg taasu Yacine. ci bus yi ci bus yi di fecc ji. mais pas sànq yaa ngi waxu car rapide non man je suis contre que car rapide yi jóge les car sont magnifiques. dafa bokk ci décor Dakar. Mm-hmm. mais mm-hmm. xam nga xam nga du car yi ma gis de car rapide yi nga xam ne weñ yi dañu génn papa sax. boo solee yére boo wàccee eh. bu la xoosee nga tétanos waaye tamit sa yére sax da ko yàq balaa nga yéeg. Ah, mais Asma xaw ma Yacine. naam. au départ. Carapit c'était pas destiné à ça. te mel woon nii. dañ ko defate mu mel nii. ñu dugal ci ay nit. marchandise la woon. ak autofas mhm. yooyu la woon. Mm. donc mhm. ñun comme ci jamono. nguur mooy doxal mutation. Mhm. on n'en a vraiment pas contre qui ce soit. mutation yooyu. président Abdoulaye Wade doon ko jéem. Mhm. ku fàttaliku taxi Iran yi. Mhm. mu doon jéem malheureusement. ndeysaan wàdd ci organisationnel lu si bëri doon na ko tenter. mais son équipe. faut le reconnaître équipe ba. Mhm. à un moment moo doon. c'est toujours l'équipe doon fay mais fii nag nag moom équipe ba moom la moom itam wàdd ci jamono. juumoon na ci casting aujourd'hui juum juumaat la. mais ak Sénégal fi ñu toll nii tamit quand même car rapide yi war nañ ko mën a écarter. mais mais mais yeneen yeneen yeneen ñuy daw asma. Mhm. bus ak ak ak moo war nekk lu fonctionnel. Mhm. bëri. Mhm. mais Dakar dem dik la fa ne ci bus yu paan. Mhm. waaw loolu tamit kaa la. à suivre à suivre dañ ko def noonu. Yacine saa yoo ñëw damay kontaan. parce que damay xam ne ni damay am yeete ak fàttali ko. merci ah. merci beaucoup merci Yacine merci beaucoup merci merci je suis toujours là. non man ma naan café. je suis permanent donc bi noonu dégg naa noonu la neexee na naa ne dafa neex dafa la yee. Ah, ah bàyyi ma naan jus d'orange. waaw ah, jëlal ci was bi ndaxte yaakaar naa ne li ñu. dama kaa bëgg moo tax dama Kolo Fatou Diong mii lim ñuy jox am na solo ci matinal bi madame Koundou madame Koundou nee na café Touba à chaud mm-hmm. am café Touba dañ koy tàmm naan ci mu tàng mm-hmm. bu ko defee dalay yee mm-hmm. nga daal di dem ci tool ya bay war ah du noonu lañ koy waxee waaw ku ko soxla nag foo koy jotee ah, bu ko soxla da nga dee 78 195 mi ngi nii ci écran bi pour ñi ko soxla mi ngi noonu waaye ci kanam tuuti rek dinañ ko dalal waa di jaajëfal téléspectateurs ah, di leen remercier bu baax a baax kontaan bokk ak yéen plateau bi saa su nekk di jox euh, dig daje demain incha allah ci seen émission suba teel bu leen ko fàtte ci seen rubrique savoir vivre wala astuce dinañ leen indil ay yeneen yeneen bagage daal dinañ ko indi jaajëf mu nekkoon roxeya ci li nga xamante ne nag mooy suñu fàttali li nga xamante ni moo mooy warefu kenn ku ci nekk jëmale ko déjà ci sa bopp waaye nag tasaare ko ci askan wi kon nag ci noonu nag li ñuy nuyu yaat rek ki nga xamante ni mooy sama bégi <laughs> naka mu mais man namoon naa la. la lundi ndekete lundi ak mercredi sori naa te mosuma koo xam. non c'est loin mais vous avez cartonné hier hein. macha allah def ngeen ko wax y en qui n'ont pas dormi. je te dis d'autres chaînes entre guillemets en rouge. ah oui je <laughs> ah rouge derrière nous. oui oui oui ils sont derrière nous. <laughs> mais loo wax ci café madame Koundoul bi. mais c'est trop bien man du ma naan café nag personnellement. du ma naan ataaya du donc euh, loo xamante ni daal am na mën na tey moo tax tey moom xam naa ma ànd ak cawarte nii. xanaa léegi da ngay garder la ligne. non je non mais y' a je garde les barres de <laughs> Et, et le, le, cimetière de, de poulet Ouais, ouais, cimetière de poulet et de, de veau. Euh, euh, oh. Et, et Yacine, un petit secret, il adore la bonne nourriture. oui, je mais connais. Que, mais wane na ko. mais gisul sama tay nu mu bellee et cetera de xam nga rek boo ma xoolee daal am na foo may féetee ci nguur gi. alors ci noonu lañ koy dalalee ci li nga xamante ni mooy lu et vu sur le net tay mu ñëw ak ñun ci les Simpsons ñoom tamit doy waar trop waaye bi <laughs> dina si jikk ak ñun gën ñu ko leeralal c'est euh, tout suite alors euh, Biggi ñu ma ma biral. nga waaw biral. nag les Simpsons euh, c'est pas une première nit ñi di ci wax sur les réseaux sociaux ñoom euh, une série culte boo xamante ni ça a été diffusé premier épisode bi le 17 décembre 1989 mais 673 épisodes.